ami internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ci thiesinfo.com gis ngeen nag état d'urgence couvre-feu tey nag ñu ñëw euh, doxantu fii ci euh, daral bi nekk ci euh, r jàmm gën jàkkaarloog nag stade Ndiaw Macodou ñëw xool ci également jaaykatu xar yi jaaykatu nag yi ñoom naka la ñu duddee état d'urgence bi ak couvre-feu bi si seen wàllu liggéey ndax gis nañu ne li nga xam ne moo di transport bi ci région par région dañ ko interdire ànd ak ñoom laaj leen naka la ñu dundee état d'urgence bi ak couvre bi euh, ci kàddu gi Ahmadou Bamba lii ma feggoog euh, Adama Ndiaye ci wàllu caméra bi. voilà gis ngeen ni ma ko waxee sànq maa ngi nag ak Baye Cheikh moom jaaykatu xar la jaaykatu nag la ci euh, daral. Euh, bi nekk fii si jàmm kën jàkkaarloog euh, stade Ndiaw Macodou euh, champ de course Bachir salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. alors Bachir état d' urgence couvre-feu feebar coronavirus am nay mesures yoo xam ne état du Sénégal jël na ko ci dakkal ci diggante voyage bi région par région ndax amut lenn loo xam ne rek gàllankoor na ko ci seen wàllu liggéey. ah gàllankoor gi moom dañuy wax moom am na ci ndaxte daanaka feebar bi àdduna bépp la laal. ñu ñaan yàlla di profité occasion yàlla na ko fi yàlla jële jële ko ci réew mi ak àdduna wërngël képp ba ñëpp nekkaat seen jàmm mais état d'urgence couvre-feu laal na suñu liggéey bu baax a baax a baax ndax ñun dañ daan dem Fuuta daanaka presque couvre-feu bi bi décret bi génne ba léegi kenn demul Fuuta kenn demul Bambey kenn demul Touba kenn demul Daara kenn demul Linguère mu mënatuñoo am nag fi mu toll nii mënatuñoo jënd benn xar ci luuma ndax yëpp tëj nañ couvre gis nga 17 heures la ñuy wàcc bu 17 heures jotee doo gisati kenn ndax ñëpp dañuy bëgg daw ñibbi seen kër te fii da nga naan toog ba guddi man sama kër tout près soriwul mais dama naan toog ba 21 heures wala 20 heures wala par exemple 22 heures sax nit am benn cas urgence ab décès wala ko war a ngénte jógee benn vi guddee ñëw woo ma ma jaay ko dem ñibbaat sama kër waaw kon nag couvre-feu bi moom xaw nañoo laal bu baax a baax ndax guddi gi fii dañ daan jaay dañ daan jaay dañuy woo téléphone dañ daan jaay mais gis nga léegi daanaka 17 heures gis nga daral bi mi ngi nii yaraax na daanaka 17 heures ñu ñibbi waaw ndax jamono ji euh, xar na ci xar moom bëriwu fi moom kon ni ma la koy waxee xar moom bëriwu fi ndax tabaaraka macha allah ñun yàlla dimbali ñu Thiès ñoo fiy daral bu mag daanaka département de Thiès daral bii mooy daral bu mag bi chaque samedi chaque samedi ñeenti camion wala ñetti camion daana fi jóge wàcc fi jóge Fuuta ndax gars yi dañu daan dem topp luuma yi ba dañuy dem Nabaaji alxames ñu dem Ciloñ ajjuma ñu dem Galoya pen sax amuñu jàll Medina ñoo xam ne dañuy tardé dañuy yéex a dem daanaka maanaam daal chaque samedi ñetti camion daan na seere ñu wàcce waaye boobu ba léegi boobu ba léegi camion wàccul oto wàccul dara wàccul bu daal pen saa nga taaba taaba am ko soxla génn këram ñëw jaay la nga yeewaat jaay loolu moo fi am. yéen a ngi sàmmanteeg euh, consigne yi ministère de la santé joxe maanaam di raxasu di sol gant euh, di takk masque. Euh, euh, jaxasoo bi également ñu wàññi ko ndax yéen a ngi euh, sàmmanteeg matuwaay yoon. waaw loolu moom loolu moom ni ngi koy sàmmante bu baax baax ndax loolu buñ ko defee tamit dañuy jàppale état ma profité occasion tamit di ci gërëm waa mairie Thiès Est bopp ba si di Diop ndax boo gisee lee ñuy raxasoo ne moo ko fi yónnee daanaka place bu ne jox na la jox nañu benn bidon jox ñu benn bi pour kii eau de benn bidon eau cinq savon ak benn gel. pour ñu ciy raxasu ñu ngi koy appliquer nag à la lettre dajaloo bi tamit fii daanaka ñu nga dajaloo amul dara bi daa yaraax fii moom mal ñun sax yàlla dañoo dimbale bokkut comme genre marché ndax marché yi da gis ni ñi fii bu dul tabaski wala korité wala événement màggal wala gàmmu amul amul raj raj loo client day ñëw nga jaay ko mu dem nga toogaat xaar ba client ñëwaat daanaka moom loolu moo fi am mais bu dul événement moom raj raj loo moom amul fii moom waaw ban message de sensibilisation ngay lancé jëmale ko ci say mbokk jaaykatu xar wala jaaykatu nag yi nga xam ne ñoo nekk ci ci dara li ah ñun ngay ñun li ñuy sensibiliser moom mooy ñun moom ndigal gi ñu ngi koy jëfee ndax fi mu toll nii mënoon nañoo jéem a naan dañuy jéem wut oto di dem Fuuta di wuti ay xar wala ñu dem dugg ci àll bi wuti xar mais defuñu ko beneen bi ci topp tamit mooy dañuy ñaan yàlla saafara ko rek ba ku nekk nekkaat sa bopp ndax affaire moom ñëpp la laal comme ni ma koy waxee keroog ba ci taalibe bu ndaw bi sax da koo laal ndongo daara bi dañuy ñaan yàlla daal yàlla saafara ko ba ñëpp mën a liggéeyaat normal ndax tey fi doon nii gis nga cérémonie amul dibiteri vingt heures lay wàcc tout ngénte amul daanaka amatul booy jënd xar mu ndaw nga jënd wala nga bëttal kon dèjà ñun sax dañuy xëy toog di xaar yàlla yàlla nag moo yor wërsëg ndax moom jaam bi moom jëbu nekk am na lu suñu borom wërsëg bu mu suñu borom def loolu daal la la ñuy def mais fi doon nii moom sant yàlla daal dañuy sant yàlla rek. non non gàllankooru ci dara de xanaa kay lenn dem voyage yi dem jënd ay xar jënd ay nag comme ni ñu doon def di dem ci luuma yi di dem ay Fuuta dem ay Linguère dem di ñëw loolu daal moo ñu gàllankoor ak frontières yi ñu tëj ak affaire yooyu loolu daal moo ñu xaw a gàllankoor tuuti dool ni moom ñoo dem fenn dañoo toog rek gérer li ñu yor te xam naa ne fii ak semaine fii ak semaine moom wala deux semaines daral bi moom nit dana fi ñëw bëgg a ko am waaw. parce que pour l' instant fi mu toll nii xar amatul ñu ngi sunu gétt gaa ngi nii amul dara waaw beneen gétt gi nii gétt yaa ngi amuñu dara waaw léegi yow da ngay xëy si rek toog waaw am na ñoo xam ne sax tane nañu parce que lu mu dee dee ñu ngi uuf ay fukki xar ñaar fukki xar mais am na ñoo xam ne sax yoruñu xar dañuy xëy si rek toog ba ngoon ñu dem ñibbi xam nga loolu metti na waaw surtout koo xamante ne yow da nga doon yor sax xaalis nga dem Fuuta wala nga dem Linguère wala nga dem Jolof soo demee am fa deux jours trois jours jënd say xar ba sa oto fees nga daal di ñëw deux semaine trois semaine nga jaay mu jeex nga delluwaat waaw surtout ci borom kër ñëpp ay borom kër lañu léegi nag boo demee toog weer ak nangam dematoo àll ba téye sa xaalis ah jëndatoo xar jëndatoo bëy jëndatoo nag xam nga su boobaa day metti parce que la nga liggéeyoon lépp la nga yoroon yëpp sa budget bi yëpp day dem sa capital yëpp day dem dootoo yorati dara waaw te yàlla xam ñun xamuñ kañ lay jeex. kon daal trop métti na si yéen. torop na si ñun torop waaw. na ñu surtout dundal xar yi ak nag yi moo gën a métti sax waaw fi toll nii nag yi ñu fi yeew fi mu toll nii mettina xont bi seer na ngooñ mi seer na waaw fi mu toll nii la boo xëyee la nga doon am ci bénéfice la nga doon dajale di fortaatu moom ngay jël jox ko nag yi ñu lekk ko nga toog parce que mënoo yor jur it yeew ko di ko seetaan noonu te joxo ko dara waaw kër yi kër kër gi it aussi noonu soo wàccee it fere yaa ngi lay xaar kër gi ak dépense yeeg yooyu waaw ñun daal li ñu doon arrangé daal mooy li ñu doon def moom bu ñu dimbali woon tuuti sax benn côté sax même bu dee sax benn quinze jours sax wala ñu jàppale ñu sax ci marché yi ndaw yi comme lu mel ni Touba Toul ñu ubbi ko benn yoon ci semaine bi sax xam nga ñu dem ñëwaat sax dinañu arrangé mais fi mu toll daal dañoo toog rek jàpp suñu jàmbur waaw am na ñoo xam nag ñu ngi fii xëy si toog yoruñu dara nag waaw ñu dara. ndax a ngi sàmmanteeg euh, li ministre de ak détergent yi ndax yooyu am na ci waaw loolu moom am na fi moom parce que maire bi ñëwoon nañ fii préfet bi ñëwoon na fii ñu jàppale ñu waaw parce que gisoo bidon yaa nga ne ak eau de javel beeg yëpp saabu yeeg yëpp indil nañ ko fii moom ñu loolu moom loolu moom amul problème fii ñun ñëpp ñu ngi koy toppatoo te et puis ñun fii demeewul noonu sax parce que bariwul ay nit comme dëkk bi fi mu toll nii fépp taxaw it aussi njaay mi demeewul noonu waaw parce que ñun ñi nga xamante ne ñooy jaay fii rek ñun ñoo ne fii te bariwuñu waaw boo xoolee place bu ne ay ñaari nit dafa nekk wala ay ñetti nit waaw doo fi gis place boo xamante ne fukki nit a koy jaay waaw loolu bariwul fi quoi amul rassemblement te client yi aussi du ñu ñëwandoo par groupe par benn mooy ñëw par ñaar waaw par rapport ak bu njëkk ba nag moom amoon na ambiance waaw nit ñi dañ doon ñëw di jënd si da nga doon ñëw gis benn client bu ñëw ñu doon ay juróom juróom benn bëgg nag wala nga gis fukki euh, ñeenti nit ñëw bëgg ñaari xar ñetti xar mais loolu moom dafa wàññeeku sax fi mu toll nii waaw affaire yooyu moom macha allah m côté boobu moom ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax baax a baax waaw am na ko ñu bëgg dem àll dañu doon dem dem àll bi jëli léegi mënatuñu génn léegi day toog léegi day am na ñu bari ñu bëgg a nekk fi léegi bëgg nañu dem moom mënuñu dem loolu moo tax problème mooy gàngoor bi kon normalement kat yi bu yàlla defee jàmm kat yi ni si wax ne moytu leen dañu war a moytu am normalement luy jóge bitim réew adduna bi yëpp dal nañu ñun ñoo gën a tuuti ci adduna bi il faut ngeen jéem a moytu am nu ñu def nu ñu war a def yëpp de ñu ngi soo jéem yàlla na yàlla jàppal ñu nag ñun yëpp njaay na wala doxul bi kay doxul doxaay bu sew karaamul bu karaamul mënul doxee doxaay noonu. boo boo jëndee fii kay benn quartier yi taw daa seer yow nga ñëw te bëgg a jënd taw nga kaaw tellement affaire bi du kenn mënu ko jot waaw. nan taw fekkoon fii ñaar téeméer kàlla doo fekkoo fii même juróom fukk kàlla loolu mooy problème bi aduna naka noonu. nangu nañu nag lu ñu wax il faut que ñu jàpp ci rek bu yàlla dindi kër bi ñu continue lu ñu doon ngeen ci bi mu jàppale ñëw fii ci ñun fii ñëw fii ci ñun suñu waxuñu lu ngeen bugg wala lu ngeen bañ wala lu ngeen moytu wala lu ngeen moytul wala mairie bii de kerook indi nañu fii bi indi nañu fii benn bidon bidon bi. pour ñu muy def ci ndox di di raxas loxo yi loolu dëkk na parti loolu gam kenn taxawul. yéen a ngi sàmmanteeg. Euh, gouverneur Ndo Assane ah, na préfet ñëw na fi benn yoon nee na ngi nañu moytu loolu moo tax moo kanaan lii mu ñëw. ñun six heures ci teg rek ñu na gardien bu nekk fii nag am na gardien yu lu ñu lu ci teg rek. ñu def fa jërëjëf euh, Baye Cheikh jërëjëf mbokk internet Thiès Info Ahmadou Bambali moo nekkoon ci kàddu gi ñu ñëw nag ci daral champ de course xool si woon suñu mbokk nag jaaykatu xar yi jaaykatu nag yi naka la ñu dundee euh, li nga xam ne mooy état d'urgence ak couvre-feu bi ñeel nag ci euh, li nga xam ne moo di feebaru coronavirus Adama Ndiaye moo nekkoon ci wàllu caméra bi ñu jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme Thiès Info point com jërë ngeen.